bu fekkee ne nit ki dafay liggéey surtout nag mu nekk jigéen. Mm. boo xam ne exemple la mun nañ ko jël parmi des femmes euh, yoo xam ne exemple lañ ci Sénégal. Mm. am kuréel bu mu teg mu liggéey ba wàcc surtout nag heure bi mu wàcc nga xam ne bariwul sax ñu bari nga xam ne dañuy prolonger seen journée ba nuit bi ñuy ñëw. Mm-hmm. heure boobu ay nit kar ko. Mm-hmm. def lu ñaaw a ñaaw ci kawam kooku kenn du ko rafetlu. Mm-hmm. waaye di wax ni. lu muy lu muy mooy. Mhm. que li ñuy wax mooy problème de l' insécurité au Sénégal parce que tey bu ñu demee ba ay journalistes ñu leen di attaqué ay journalistes ñu leen di def yëfu ñaawteef mooy war ni ko réew mi war nañ toog xoolaat ko. Mhm. xoolaat ko ci côté sécuritaire xoolaat ko ci fànn yu baree bari parce que am na yoo xam ne dafa nuyoo ci Sénégal si benn formulaire boo xam ne sénégal yi mosuñu ko xam. Mhm. surtout ñu ñi ñoo xam ne jot nañ ñu eh, jàngal. wala forme nu si yenn parti politique yi. Mm-hmm. nga xam ne même bataille d'opinion bu amoon menaces yi sax bu daan am daawoo ci gis yi. Mm-hmm. parfois sax ñuy rappeler leen naan la parti politique yi ñoo gën a violent mais dem ba àgg ci côté presse ak ay menaces di am. Mm-hmm. ci ci ci waa presse bi kon loolu. loolu moom ñu ngi koy doo gis Sénégal surtout nag. ñu dem ba gis ko ñu def ko ñu def ko pour la premier fois une femme journaliste. boo xam ne patronne de presse la. ah li ñuy wax rek kon li ñu waxoon démb moo si dekk mooy fépp fu ñaaw lu nekk. Mm-hmm. dañ ko fay ñaaw te wax autorité yi c' est le moment nag d' éclaircir il faut que ñuy clarifier parce que yi day répété au Sénégal parce que mënuñu ni à chaque période lu am rek mu am soit ay blessé wala mu am ay moor te duñu situer les responsabilités. Mm-hmm. te fii nag dafa dafa laaj que lii undu na ni que li ñu li doon wax ci Sénégal ni Sénégal dugg na ci benn pëcc xoo goo xam ne. Mm-hmm. kenn ñaanu foon yàgg mais tey jii dafa mel ni beneen phénomène. ak yeneen phénomène de violence yoo xam ne lañ bëgg méngale Sénégal te loolu bokkul ci Sénégal mhm. kon li ñuy wax mooy autorité yi c'est le moment de prendre toute responsabilité pour ñu xam ñan ñoo def loolu te loolu tamit jéem a xoolaat nag surtout nu ñu mën a ka aaree aaree réew mi mhm. parce que réew mi toll na foo xam ne problème de sécurité moo commencé poser dans ce pays mhm. parce que bu ñu demee ba ay journalistes ñu leen di agressé sauvagement ñu def lii c'est des actes de barbarie parce que kenn mënu koo xam kenn mënu koo amoon na ay menaces yoo xam ne mi ngi ko doon mi ko doon jot ci réseaux sociaux yi. bien vrai que ni réseaux sociaux yi yenn saa ngi lire si loo xam ne sa yaram da ngay tiit sax ne est-ce que Sénégalais mais bu demee nag ba am ay actes physiques nag. Mm-hmm. ah au-delà il faut que ça s'arrête. Mm-hmm. ñu nag looloo tax nag moo indi suñu tànk ñu ñëw fi tey. pour ñaawlu loolu pour tamit di ko ñaanal di wax ni. Euh, les autorités yoo xam ne muy police boo xam gendarmerie ak ñoo xam ne. Mm-hmm. dañu war autosaisir pour xool lii surtout le procureur de la république pour mën a clarifier lii xam ne yan actes yi ci fan la jóge ak ñan ñoo ko def ñu si mën a situer les responsables